بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعدم لنتجاء القرآن القصائد نيوان لن دي نيو دي لن زيارة دي لن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته di nuyu sëriñ Abdou Khadir ma fekk ci bunt bi ak di nuyu di siyaare sëriñ Mouhamed Diagne euh, di ko sant ci laaj yu laaj ak tont yu tontu yu leer yi di ñaan yàlla taw feexal ko te gën a ubbi dënnam te gën a euh, ubbi xelam gën a yaatal xam-xamam gën a barkeel xam-xamam di nuyu mbooleem ñi ci daara ji yëpp rek bàyyiwuñu kenn ñu ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa tey nag ñu ñëw ci xadisu semaine bi ñëw ci xadis boo xam ne nii ñu ngi ko jële ci usaamata ibnu saydin radiallahu anhuma marfoan kon xadisu usaama boobu mu waxoon tam jëmoon ci bu taawun amee bu am mbas amee la ca njàngale ma ca yonent bi sallallahu alayhi wa joxewoon hadis boobu la ñuy ñëw incha allah jëli nañ ci usaamata ibnu saydin radiallahu anhuma marfuan mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa nee na ida samixtumu taawuna bi ardin fala tadxuluha wa isa waqaxa bi ardin fiha fala taxruju minha hadis bi moom la usaamata xadis bi nag muttafaqun alayhi la ñëw na ci saxiixul buxaari yu ñëw na ci saxiixu muslim lu ci ne xadis boobu ñëw na ci kon xadis la bu wér xadis bu wér wér la kon nañ ñëw ci sarxu xadis bi ak njariñ yiñ ci mën a jëlee Usaama nee na yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne bu fekkee am mbas mbas wàcce na ci benn ci am wàcce na fenn nit ki bu fa duggutoon du dagan ci moom mu dugg fa ngir lan ngir sàmm wér-gi-yaramam ak sàmm wér wér-gi-yaramu ñi ci des kon bu am mbas nekkee ci ab dëkk daganul ku nekkul ci dëkk booba di fa dugg ngir sàmm wér-gu-yaramam moom waaye ngir sàmm wér-gu-yaramu keneen ka ñeneen ñi ci def waaye tamit mbas mi su duggee ci boo duggee ci ab dëkk am mbas ne fa daganul nga génn dëkk boobu di dem feneen li la war daal mooy nga muñ dogalub yàlla ngir nga mën a am yoolub suñ borom kon at taaxuun li hadis bi wax ni isaa samixtumu taaxuuna at taaxuun borom xam-xam yi wax nañ ci lu bare bare waaye at taaxuun daal ci gàttal définition mooy feebar boo xam ne dafa matale mbas moo xam ne dafa gaaw ci ni muy tasaaroo dafa gaaw ci ni ñuy wàllante loolu mooy attaaxoon wax yu bare bare ñëw na ci nag waaye bañ a bañ a guddal moo tax ñu indi définition bi muy feebar boo xam ne dafa général ba noppi wàll gaaw lool loolu mooy taaxoon njëriñ yi mën a jege ci addis bi bokk na ca mooy feebar am mbas bu fekkee wàcce na ci ab dëkk kum fekkoon ci dëkk boobu du dagan ci yow nga génn dëkk boobu ngir daw feebar bi ngir daw feebar bi loolu lañ tere nga génn ngir daw feebar bi du dagan nga dugg fa ñaareel ba danañ gis ne li ñuy wax ne mettre en quarantaine alxajuru six yi lislaam moo ko njëkk taxawal lislaam moo ko njëkk a taxawal lislaam moo ci jiitu àddina bi yonent bi wax na ko junni at ak nàngam ñu soog ca àgg te mooy dëkk bu mu ne ku fa nekk bu mu génn bu fa kenn tamit dugg lii ñuy wax confinement dafa mel ne lislaam jiitu na ci àddina bi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ko ca boobaag léegi mën na junni at ak ñeenti téeméer kon bu mbas nekkee ci ab dëkk yow ma fa nekk bul fa génn yow ma fa nekkul bul fa dugg ñetteel bi mën nañoo jàng ci hadis ne wàlle am na feebar ma naa tasaaroo waaye nag bi isnillahi ci ndigal suñu borom loolu loolu di amee wàllante bi mënut am lu dul ci jëmi feebar bi mi ngi amee ci ndigalu suñu borom ak ci dogalam doonul ne ñu ko ñëpp xalaatee ne feebar bi dafay wàllante ci jëmmi boxam wëlif la suñu borom waaye wàllante ki mi ngi am ci dogalu suñu borom ak nammee fam kon nanu xam ne li am santaane woon bu ko àddina bi defoon kon feebar ba fa mu tàmbale woon fa la yem bu fekkoon ne dëkk ba mu yemoon ba mu amoon bi mu amee rek dëkk boobu dañ leen a mettre en quarantaine kenn du dugg kenn du génn kon feebar bi tey jii du law ni mu lawee ci senegal kon dañ ci jàngee ne ñàkk jëfe ndigalu yonte bi sallallahu alayhi wa sallam na àddina jafe waaye dañ ci giseen tamit yonte bi santaane woon bañ ko tàmbalee def wala Chine mu feebar ba tàm tàmbalee moom li yonte bi santaane woon ba mu ko defee gis na ci résultat gis na ci njariñ kon loolu rek moo nekkoon xaddisu tey bi te mooy bu ngeen déggee mbas ci ab dëkk bu leen fa dugg bu ngeen fa nekkee bu leen fa génn daa mel ni loolu yonent bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam tey jii moom la àdduna bi yëpp di xeexee feebaru corona bi kon yàlla nañu yàlla fayal yont bi sallallahu alayhi wa sallam te saxaluñu ci jëfe ndigalam bàyyi tereem wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.